ay partenaire am Saloum Dieda World Trading Clinique Marie ak Almadina International Travel ñoo leen may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. Euh, ngi dellusiwaat kontaan si présenté euh, suñu émission bi nga xam ne léegi moom. Euh, Euh, mi ngi gën a law gën a am doole ah, parce que nit ñi ñu ngi woowee de partout pour euh, di ñu poser ay questions euh, di ziar donc mbokk seen info yi di kontaan si ñoom di ziar imam Moustapha Sakho dirigeant seen info Eh, di kontaan si moom di kontaan si équipe bi nga xam ne saay su ne ñoom ñooy ñëw fii pour eh, en collaboration avec la clinique médicale eh, Kër Marie pour mun am lu ñuy apporter ci santé population bi di profito di ziarewaale di nuyuwaale sama xarit yeneen imam Euh, notamment imam euh, euh, Khadim Ndiaye bu nekk Parcelles imam Ndaw bu nekk Sacré-Cœur 3 imam Pape bu nekk Jëppal imam Taybatu Mbay bu nekk Scat Urbam donc ñooñu ñëpp sama ay xarit nañu ay imam nañu di ziyaaraale imam Sénégal gi yëpp di tàllal suñu loxo Eh, di sàkku ñaan ci ci ñoom pour eh, jàmm Sénégal jàmm àdduna tey nag eh, émission bi ñu bëree bëree bëree dañ may naan waa docteur émission bi kañ nga koy def émission bi kañ nga koy def tey moom dañuy wax ci benn sujet boo xam ne nit ñi tax man je peux dire que ñoom ñoo ma xaw a ba max tuuti pour ma def ko wante waxtam xawoon na des tuuti ah wax waroon na des tuuti pour ñu def ko tey dinañu wax waxu AVC soo leen déggee ñu wax abc rek ça veut dire que accident vasculaire cérébral soo leen déggee ñuy wax accident rek loo xam ne dafa dal ci nit ki te euh, lu gaaw a gaaw lay nekk ba noppi euh, daf koy bett donc euh, vasculaire cérébral ça veut dire que dafa laal sidit yi ba noppi li nga xam ne moom moo war a andi deret bi ci yóor bi moom moo xaw a fattu donc euh, bu boobaa dafa am noo xam ne dafay dikkee noonu ci nit ki donc euh, accident vasculaire cérébral am nañu ñaari façon ñaari façon benn bi dañ koy wax ne c'est hémorragique euh, benn bi c'est ischémique donc euh, am na benn différence bu ndaw benn bi nàcc-nàcc la benn bi tëj tëju euh, sidit bi la sidit bi su tëjuwee dafa am ay ay éléments yoo xam ne en général ñoom ñooy ñoom ñooy gën a favoriser donc pour ñu pour sidit bi tëju am na ci suñu émission bi ñuy wax waxu diabète bi ñuy wax waxu tension ah waxu cholestérol wax naa leen nekk ne ay diabète tension cholestérol ak am yaram genre xeetu feebar yu mel noonu euh, ñoom ñëpp ay cousin nañu kenn ki su duggee rek euh, mun na xëcc euh, ñeneen yi donc lu ci mel ni par exemple tension am na foo xam ne fa tolluwee donc euh, mun na andi am ay euh, complication ay complications genre euh, AVC donc AVC bu fekkee yegsi na dafa am nu muy manifesté wu naka lay manifesté wu lu ci gën a bare li ci gën a bare nit ki dafay jékki-jékki mun na nekk mu am trouble langage mu jékki-jékki mënatul wax. wala wax bi diis wala mu bëgg wax wax bi euh, mënul génn muy jéem a dox euh, tànk bi diis mu mel ni euh, dañ koy mbas donc suy jéem a dox rek dafay daanu loxo bi loo xam ne mënoon na te té téyewaay bi doole teewaay bi dafay wàññeeku donc euh, noonu la ñuy wax ne que ne paralysie de la moitié du corps léegi paralysie boobu mun na jàpp ci kaw comme mun na jàpp suuf comme mun na jàpp ci kaw donc euh, ba ci suuf donc loolu bu ñëwee nit ñi euh, tàmmoon nañu bon léegi je pense que ñi ngi def communication par rapport à sa Euh, ñi ngi def communication par rapport à ça loolu moo tax euh, léegi nit ñi tax gën nañu xam ah gën nañu xàmmee lu mel noonu su leen dalee euh, léegi ñi si gën a bare léegi sax ñi ngi am conscience su daw si ñëw seet si donc les professionnels de santé te. plus ñu gaaw rek euh, plus euh, euh, prise en charge bi muy jaar yoon e plus nit ki donc muy am chance pour génn ci parce que il y a quelque temps nit su doon def AVC rek genn wàll bi balaa ñuy am at dañ leen doon ñàkk genn bi donc balaa ñuy. Euh, am at donc dañ leen doon ñàkk donc loolu dafa am tendance donc à la mi ngi wàññeeku tuuti tuuti parce que nit ñi commencé nañu tiit commencé nañu xam et am na ay communication yoo xam ne euh, defoon nañ ko ci feebar yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo précédé woon mooy par rapport euh, ak jabet bi ni waxoon nañ leen nit ñi nañuy dem di seet seen yaram di seet professionnel yi pour xool ndax amuñu ay problème mu diabète bu fekkee yaram bi dafa ëpp ngeen ñëw ñu jox leen ay jumtukaay yi nga xam ne moom moo leen di permettre seen yaram bi euh, wàññeeku bu fekkee da ngeen am ay euh, lu fi mel ni ay cholestérol euh, ñu jox leen am na ay garab yoo xam ne fi ñu ko joxee tamit dina leen dimbali et li nga xam ne foofu la gën insister foofu la gën a insister maa ngi dugg nanka ni sax ci traitement bi parce que loolu benn pàcc la ci euh, traitement bi fi nga xam ne moom la gën a insister ci alimentation bi la euh, moytu leen euh, suñu buy yi ah, ah mooy ay magi yi ak yu demee noonu bouillon yi nañ leen moytu suñu jigéen yi suñu yaay yi Euh, ñu xool nañuy def suñ ko mënul bàyyi ñu wàññi bu baax utilisation buyon bouillon yi euh, si suñu alimentation toujours ñuy moytu lekk lekk boo xam ne dafa saf suukar torop euh, moytu lekk boo xam ne dafa saf xorom torop ñu gën a yi li nga xam ne moom mooy fruits ak légumes yi et ndox ndox dafa am dafa nekk loo xam ne lu am solo la ñuy naan euh, soo leen maree dañ leen naan soo leen marul dañ leen naan parce que il est conseiller entre au minimum entre 1,5 et 2 litres do bu fekkee mun ngeen naan un peu plus ngeen naan un peu plus mais le minimum li nga xam ne war ngeen ko mun a naan ci vingt 24 heures yi moom mooy cinq euh, donc euh, litre do loolu soo ko boolee. def tuuti sport def tuuti sport euh, bu boobaa bu boobaa loolu mun la dimbali pour genre xeetu feebar yu mel nii donc euh, mu mu bañ la mu bañ la mu bañ la dal daal donc euh, si kaw loolu bu fekkee donc loolu moom mooy benn pàcc ci traitement bi beneen wàll bi loolu c'est pour les professionnels de santé bu fekkee par exemple euh, nit ki ñëw nañu ba ñu seet leen ñu gis ne effectivement que am na euh, paralysie moitié corps bi et affaire bi feebar bi mun na dem sax ba nit ki euh, perdre conscience donc nekk dans le comment ah di nelaw donc euh, bu fekkee balaa ñuy yegg foofu yëpp euh, gaawantu nañu ba nga xam ne que ne euh, yegg si nañu si milieu hospitalier yi avant les six heures en ce moment là nit ki am na beaucoup plus donc de chance pour ñu récupérer ko pour ñu andil ko saafara par rapport ak li nga xam ne moom moo ko andi andi mais. on se rend compte que les gens, ils viennent toujours en retard, 12 heures de temps après, euh, après bi premier après premier siècle yi donc loolu dafay wàññi chance su nit ki donc pour mu récupérer loolu moo tax ma ne leen de le début de l'émission euh, nit ki euh, AVC Sénégal euh, genn wàll bi yëpp dañ leen di ñàkk balaa ñuy euh, am un an. donc euh, loolu war nañ ko mun a améliorer donc deuxième pàcc euh, feebar bi toujours si de deuxième pàcc si faj bi donc euh, bu fekkee nit ki Euh, mënuñu agir si euh, facteur de risque yi comme ni mu ko waxee bu fekkee affaire bi dal na ko ba mu yegg si ba ñu wax ne ba ñu def loo ko scanner bi ñu ne la AVC ah, bii di nàcc la wala beneen AVC bi bi nga xam ne moom mooy fatt euh, sidit bi dañu lay am ay garab yu ñu leen di piqûre dans un premier temps ah on appelle ça des anticoagulants dañu leen di defal ay anticoagulants euh, et puis euh, woo benn kenn ko xam ne moom mooy euh, def massage yi kinésithérapeute bi donc moo moom mooy donc compléter traitement bi léegi loolu suñ ko amee rek war nañu mun a am dara donc par kii bi donc émission bu tey bi dañ koy arrêté fii euh, di remercier équipe bi équipe Sen Info et plus particulièrement euh, suñu caméraman Abdel qui est toujours là donc euh, merci merci au téléspectateurs et merci à l'équipe et je vous donne rendez le mercredi prochain